waaw asalaamaaleykum mbokk internet bu Guédiawaye Info TV tey ñi ngi fi nga xamante ni mooy Guédiawaye Angle Mousse ñoo seet si champion boo tey maa ko tuddee le de Eumeu Sène ndax ci teey gi ci yar gi ci nite gi waaye itam ci xam àdduna bi mu doon également xale boo xamante ni saa yu deretu mbër gi yëngoo mu daal di léwtoo daal di takk ngemmam waaye itam bu waafee daal di xel yi dem ci surtout Samba Xoyaan bi le roi des arènes Eumeu Sène xale boobu le moo daan limousine moo daan général bu Malika moo daan Kaw Cité Eumeu Sène junior mbokk ñu daal di dugg rek bakaay seet ko daal di tàmbali waaw mbokk internet yi comme ni leen ko waxee woon rek champion baa ngi nii waaw mooy ki nga xamante ni moo daan limousine daan Kaw Cissé daan aussi général bu Malika ñu koy woy Eumeu Sène junior bu école Lille Mor Fadam ñu ngi lay nuyu nga présenté wu bu baax di nuyu mbokk internet yëpp xam nga di nuyu aussi aussi tamit euh, waa école Lille Mor Fadam di nuyu waa Guédiawaye xam nga nuyu waa ginnaaw raay aussi Pikine xam nga di siyaar ñëpp. nuyu suma waa kër xam nga nuyu suma ñaari jeeg yi fi nekk muy Fama ak Binta maa leen di siyaar bu baax a baax nuyu prési xam nga di Ngoye xam nga ñaanal mbaytin aussi tamit ak Pambaay di nuyu père grand Tafa Ndiaye di nuyu ñëpp daal école yi moo bépp père moo faram maa koy siyaar bu baax de passage ak coach yi ok. Ah, champion kan mooy ah, Eumeu Sène Junior. benn Baye Fall la rek xam nga benn Baye Fall la bu nga xamante ni. xam nga mi ci lamb ji xam waaw di wax naan li gars wax naan taaba taaba di taaba taaba ci lamb ji parce que lu gul la lu gul noonu lañ koy waxee xam nga mais daal yàlla baax na ñu ngi ci kawam incha allah teggum suñ tànk te ñu ngi cay loxo yu baax daal ñu ngi tàggat waaw ah, mais buñ xoolee dañ naan tur bi nekkul tur boo xam te dafa ñëw donc par hasard parce que nduroo ngeen te am na astuce yu bëri yoo xam te ne ngeen ko bokk tur boobu dañ ko tuddee sa bopp wala dañ xool ngeen nduroo ñu tuddee la ko ok waaw loolu moom xam naa ne gars yi yàgg nañ di dama ci laaj mais tey dinaa la ci wax parce que man ma nekkone nit bu nga xamanteni ni maa ko doon toppandoo dama ko doon toppandoo sax di teg pied droite ni ma ci daal xam nga léegi ma dem ba mujj ma ne ñi ko nekk daal sey mënin ba amati son pied gauche xam nga waaw man ma nekk nit bob ma mën imiter nit ma mën topando nit ma dem diko topando bu ba ndrom non ya waaw la. même bu topando wesso sax ci côté bind yoy yep da nga a nduro trop. waaw ko trans waaw loolu yëpp mo dama la wax rek xam nga nit mom bo yagge diko imiter sax da ngay bu bu yagge da ngay di da ngay di ndiro man ma yàggoon diko diko di ko ci yu bari muy fecc ay doxin affaire yooyu noonu yëpp ay comportement ci saal affaire yooyu yëpp maa ko doon toppandoo ba foofu nduróo moom mënatuma ko dindi nag <laughs> waaw. bu loolu weesoo lan moo la dugal ci làmb. waaw làmb li mu ci gën a dugal benn grand bu ñuy wax xaalis xam nga moom si dugal ñoo bokkoon boobu maay atelier Karanjaay xam nga di jàng métier xaalis nekkoon joor ga affaire yooyu noonu. may ñew ñu may momu ñëk njëkk taxal ngeen ci lamb après la ñew ay ëllëg ci biir ñom grand Tafa Ndiaye gaay ay Baba sey xam ko dima ma ci lamb affaire yoy non ba suñu jun yalla tayji et puis tamit suma grand frère yi ma dekkoon sama baye en croisé wu ma ci baax tamit ay ñoom góor gi sang maanaam nuyu de passage ah, waaw leen siyaar bu baax eh, loolu moom dugg ci lamb daal bëgg-bëgg ak ak affaire de jeunesse après boobu géer def tolli laa def xëy wàcc ñew comme xaalis sama grand la won te ñoo nekkoon mom su wacce da fay dem entraînement daay rek léegi man damay ñew bu dem entraînement ma top ko ñu nekk ci nonu xam nga di job mom moy lolu mom mu mujj nekk mbeur quoi moom nag mujj na bàyyi mom nak mu mujj bàyyi quoi. kon mën nañ jàpp daal bëgg-bëgg mom mo la duggal ci lamb lo xam te am nga ci passion diko pratiquer kon mën na ñew wax ni tamit kon sa dugg ci lamb jaar nga forcément ci mbapat. waaw man geya mom dëgg yalla kuma xam ñepp ñu ana ñam sax arène defu fi dara bien bëru bëru na fi 15 combats mais mbapat la mu nit ñi xamé ñu bari bapal la nah, sama tournage wo képp ko mo jox cër ci bapal nah, nga mo joxe cër ndax ara jall bay fi dama dewon ba teggu sama loxo barke ci Fall dama dewon ba ara jall bay teggu sama loxo bu baaxa baax sax yan bapal nga jot beuri ak yan champion nga jot dajal ci bapal yoy waaw ñi mu bëral ci bapal bari na man ku ci neenal tey ji ay pakal la xam nga ay pakal la nañ ay assurance bu mbuur bëri nañ bapal pakal mo mo moo daan mais assurance bu mako daan xam nga bu dee way fi ay Baye Mandiaye gars yi ñëpp nañ ay daaro Fall numéro 2 bari bëri bëri naa fi moom xam nga tournoi yi ñi ngay bëri après doo leen doo comprendre da ngay ràññee rek après xam nga mais dañ daan génn ay grande Dakar di dem fu ne bu mu jugee rek ñu tere ñu sax làmb xoñ yi daan ñu dem leen fii jaanay gaar laa mu joon di dem affaire yooyu noonu mais nag mosuma fa jël quart de finale demi finale ma dem ko découragé daal koy bàyyi waaw làmb si moom nu ma découragé woon bàyyi ko moom waaw ah, mais dañ doon faral di dégg lu mel ni tamit lamb tukulóor ay mbappatu Père Birahim Ndiaye est-ce que yooyu jot nga jaar ci genre mbappat yooyu waaw mbappatu Alioune Seye mos naa fa bëri benn yoon benn yoon laa si bëri parce que tombante période boobu Elton ñoo daje woon sax jour boobu tournoi boobu Elton moo ko jël maa Elton ñoo daje demi-finale Elton moo ko jël jour boobu hmm. waaw mbër bu lol weesoo tamit bu ñu duggé donc ci sa carrière donc lit frapp ban ban année nga nga go débuté. saison 2007 2008 la bari son premier combat oui parce que man né ko na bu nga xamanteni dama bokkon ci espoir bi nga xamante ni tey jii promoteur mu teggul won pour yow tëggoo lamb ndax mu ma mosaan jóg rompre moo faram dafay fees dell ay kaari kari ñooy jóg parce que boobu dama am mbapat ba woo nit ñi su mu joggé ñepp may topp mais li gënon na xam nga yo wañu suñu supporter mooy li ma jógee woon géejawaay dem bul faale mu xawoon te xam nga géejawaay ak Pikine moom mooy loolu noonu ñu ñaan ay wujjule waaw loolu moo xawoon wàññi suma popularité mais instant bi ñu ngi waat ñëw nañ ñu ngi ci ay loxo xam nga ci mel ni précipaté ay grand Tafa Ndiaye xam nga père Mor fa ñëpp ñu ngi tàggataat bi tamit nit ñi ñu ngi wax ni tamit ñu ngi won nañ ñun seen doom lañ seen rakk lañ xam nga koo ci wax dañ ñaan da nga yéex def lii tout ça affaire yooyu mais daal sant yàlla a baax na foofu laay taxaw tuuti sax parce bu ñu xoolee tamit sa carrière de arène euh, mun nañ tamit dafa dafa acquise benn retard am na benn retard bu am par rapport ak say début amoon nga ay début prometteur comme li nga wax léegi nga daan di am début boo am te ñëpp dañ la doon bàyyi xel mais au fur et à mesure tey mun nañ doon la séentu feneen donc retard boobu lan moo ko waral. waaw retard boobu li ko gënoon a waral mooy ndogalu suñu borom deer yàlla defoon fracture dama fi damoon ma ak waa Diourbel aussi ak waa Mbour donc suma papa waa waa Diourbel man waa Diourbel la sama yaay waa Mbour la moy ni sama mbokku Baye Fall yëpp ma len di siyaar ñum tamit xam nga waa kër suñu moroom Baye Fall Ndar yëpp ak wa ah, xam nga waa Ndar Fall yëpp ma len di siyaar dal ma ngi siyaar Ndar Fall yëpp waaw di siyaar sama sang ba suñu Cheikh Bintou Fall damo ah, da dam moo ma gën a parce que presque 3 ans bëriwuma la après ci défa de tour ñu école de Mor mu tamit ñu mëne fi nga bok parce na ñew di dara wa dama ñew ci mbaytin pambay xama ak boy ñepp do xam sama cër mo mo mu lu neex wa lu neex ci xol mo tax defa amna ñi na ñi wax naan diiw da nga ki mais amna na coo xam mënu ma si bokk parce que ma jóge won fenn retard defaat retour ñoom jox ma cër bi ma xam nga ñooñu leen fay xam nga di nuyu di ñaanal mbeur yépp tamit yi ko de morfaram yépp yépp yépp yépp waaw mën na jàpp daal fracture boobu mu andi jafe-jafe nga am tam jot nga ko dund ci sa carrière waaw surtout fracture boobu moom indi gën a indi parce que peut boobu dama tegale woon ñaari soog dama àndoon ak ma seen ñuy dem daara jolof non du daara jolof fa fuuta fuuta ñuy dem fuuta après bi ñuy dem fuuta suñu oto këpp oto bi mu këppee man maa ci gënoon kawte maa ci gënoon sonn après bi ñu jógee foofu même pas deux mois laa yoro sama histoire di dawal oto benn oto mbëkkaan ma ma dam ma loolu moo gën a tardé sama carrière bon ma toog trois ans bëriwu ma mais tamit sant yàlla xam nga loolu suñu borom dogal. waaw mbër mu doon événement yoo xam te ni mën naa événement yu métti la te bërul sportif mu koy dal mu ñëwaat mais teewul yow ba léegi yaa ngi am la moral gëm li nga gëm kon ne di entraîner courage boobu ak détermination boobu lan moo ko mën a expliquer. waaw lépp ci xam nga gëm yàlla xam nga ak jàpp ne lépp lu am rek suñu boroom moo ko dogal xam nga te tamit di jàpp ñun dañoo débuté doon ay xale maanaam ni dalay gis ngay dem sax du xam ne yow mi yaay diw yow yaay ama seen genre parce que sa tur jiitu na la loolu yàlla suñu borom moo ko def moom bu ñu demee bu benn instant tamit ñu toog affaire baay xam nga dañuy sant yàlla xam ni tamit lii ndoxal suñu borom la mënuñ si dara da nga koy assumer sante ko yàlla xam nga commencé waat lépp rooti waat defaat lépp waa moom mooy yoon parce que ay jaam lañ rek ay jaam lañ ay baay faal lañ ay dongo yu xeewu lañ lu ñu suñu boroom teg dañ koy tegoo waaw ah léegi ñu wax ci li nga xamante ne mun naa ne mooy le tournant de ta carrière parce que tey am na benn jamono comme ni nga waxee sànq eh, yaa ngi woon ci làmb commencé bay sa waar succès bi ñëw ñëpp daal lay ràññee nga daal di jóge école Lit Mor Faram dem écrit bul Fall lan moo waraloon loolu. waaw loolu xam nga man dama nekk nit bu nga xamante ni dama bëgg ku ma yilif dama nekkoon suma ay mag <clears throat> te ñoo ma yar à l'âge de douze ans ba ni ma amee ay vingt et quelque xam nga ñu jekkoon jekk tamit ne ma dañu may yóbbu tax bul faale amoon nañ connaissance foofu te mënu bañ. mun ma bañ waaw ma defal leen liñ bëgg xam nga mais tamit bu ma demee ba nekk suma magu bopp xam ne man mi produit Morphodam laa Morphodam mooy ki ma tàggat naa dem ca wetam waaw ci laa defaat retour et puis bi may retour nag dem naa ba kër seen waxtaan ak moom après xam nga ñu bisiwaat gox waaw. mun na jàpp sa dem bul faale loolu ndigalu kilifa la waaw kilifa moom fa yóbbu. mais nag ñu bari dañ leen wax naan tôt ou tard xam nga amaama dem tôt ou tard dem ama seen day ñëw seen kër parce que amoon na relation ak sama sama grand frère yi daraan ñëw gaale di leen seet si affaire yooyu noonu waaw gars yi dañ doon wax nag naan tôt ou tard day quitté fii day quitté mais du lu ma gënal waaw sumay kilifa ñoo ko sant dama koy def waaw. waaw foofu laay taxaw tuuti sax tudd nga léegi le roi des arènes muy Eumeu Sène personnellement yéen ñaar ban genre relation ngeen am. maa ko koy ñaanal de passage di ko ñaanal xam nga roi bi yàlla na ko jig mais nak wax deug yalla xam nga champion la mom mi ci ruxam di bay waara mom aussi tamit ma ngi géej way di bay suma waar maa ngi koy ñaanal bu baax li may wax moom mooy waataay si nga làmb wuñu waataay singa lamb làmb boolewuñu parce que même bu dul dara nek nak ñom ñaari fan ba ñett ba ñent yu neex sax lamb làmb boolewuñu. waaye yaag personnellement di ngeen a trop di ngeen di déggante souvent wala. non man nak duma wax lu amul. man du ma wax lu amul quoi amatuñu benn connaissance boobu benn benn contact yooyu noonu amatul suñu diggante man ak moom waaw mais xam naa ay adduna ba jot amul quoi jot amul du nekk da nga koy xool sa bopp borom kër la man nii aussi boroom kër la am na lu nga xamante ni xam nga jot mayewu ko quoi waaw comme des fois ñi nga dëkkal sax des fois da ngeen di gëj a gisante asuma koo xamante ni mi ngi ay yaa ngi euh, loolu dara. am nga jóge école lit mor fadam dem écrit bul faale jóge fa aussi dem eh, fi nga xamante moy mooy écrit tay euh au finish donc nga ñëw daal di ñibbisi fi nga xamante moy mooy way école de lit mor fadam fi nga xamante fa nga doré won lépp fi la la fekk tey ñibisi bobu retour bobu lan moko waral wa retour bobu liko waral wax na la sax sànq suma biir wax moy ka dem ba xamné ne man mii magum jëm la té bi produit mor fadam laa mor fadam mooy ki ma tagat ma retourné wat dara ma bëgg ci lamb dara ma retourné wat ñëw sama gox reprendre à zéro ndax dama ñëw tak paare mi ma bàyyi ma fen dama ñëw tag commencé entraîner ñu ne nañ ko jox général Malika paare mi du ma bàyyi fen dama yuu booy général Malika moo la mën mu fipp ko jox leen ma ko. bi nga leen ma ko fan nga ko tegoon. non parce xam naa ne man ak ñoom duñu benn retard moo ma boole ñu bari ci làmb mais man ak ñoom duñu benn ar bi def mën naa ko de te ko. waaw te mun naa yaru nii affaire yooyu noonu xam nga mais bu àll bu ñu nee prix biir géew bi man ak yow kese daal di nga ma jox cër loolu moom mun naa ko wax muy mbër mu mënti doon nag am nañ yar nii ci biti yi parce que xam nga ay nit lañ bu ñu nekkul ci làmb ji ay donga lañ ay bayval lañ ay doomu aadama lañ mais bu ñu ñëwee ba ci biir làmb ji bar bi sifle laa cër bi ñu moom ni ñu ko jox bu la neexee nag nga ba ñoo respecté. combat bobu sa diggante général Malika mom toli beuy won na ci torop président dana ma wërëf na la ñuy duma. dale Cheikh Rafa du caaxaan bu ñuy duma da lay da lay duma la ma wax. man ko baxna na nañ dem. bu yeso président mbeuri nga don entraîneur waaw ñom amul nañ gëm-gëm bobu mbeuri nga doon parce que xam nañ ma ndax ño xamanteni dama and ak ñom di mbapati xam nañ ma ban combat da la beuy ji ñom mbeuy yépp ñu naan bu demee dañ ko dóor daal sama combat limousine parce que nu mu la waji zain la njool na ca kaw mom sut momo upp en même temps tamit mbër bu sarik la dafa bëgg gi tangas xama waaw gaay bari waxuñu ma ko nag après combat ba ma wax bu après combat mbër bari ñene ñi man ne ma jëwee naa la len dama ne bo remel ñi doon daal affaire yi non parce que dem bu seen semaine combat bi sama tang doon metti mais ma kam fule gérer rek xam li ma xam xam ni man mi ñi bu may bëre bëre wuñu ñom bu ñuy bëre presque ay 2012 lañuy ñuy bëre wala 2013 de man sans yu bëri saison 2007 2008 kon maa lañ njëkk a bëri dañoo waroon di wax Ama Baldé Eumeu Sène junior wala Boy Niang Eumeu Sène junior xam nga te ñooñu laa débuté ndool ay Sa Thiès affaire yooyu maa leen di nuyu ñoom ñëpp tamit di leen ñaanal yàlla xam nga suñ borom defal leen tawféex parce loolu mooy àdduna ñun ñëpp bokkuñu wërsëg mais li mën a mun a xamal mooy man moom baat bi ne prix laa cër bi ma moom rek ma koy jox. waaw loolu am na solo mais mbër nga daan ki xamante ni mooy limousine wax nga ko léegi say biiru kàddu mu nekk ndaanaan doon euh, xale boo xam te weex na xaat bu ñëwee tamit day imposer li nga xamante ne loolu la gëm adversaire am nga am ndaw ci kawam boobu ba léegi a yàgg tey xaar bi lan moo ko waral problème d' adversaire bi lan xam nga mais tamit làmb dafa am nu muy doxee euh, li ñuy wax Cobra Baara Ndiaye xam nga mbër yooyu noonu yëpp kuñ ci ñëw daal dañuy jël mais suñu borom moo yembalagul combat yi taxaw mais xañ na bis bu ko tuddee rek dina am waaw ñu ngi fi li may wax naan gars yi man je suis là pour les géants amul lu may ragal ci ay ñi ngand na njool na parce que yàlla moo ma dugal foofu ma nekk benn ndaama tey jii ma ne ndaama sax ma nekk benn digg bi doom xam nga nekk seen biir ñoom ñu sut ma ëpp ma waaw ragaluma leen. loolu daal mooy amul amul kenn koy moytu. non mënuma moytu. parce que mënuma moytu muno nek ben 120 kilo wala ngane da ngay moytu ay 130 140 da ngaa yeb sa bopp mënuma moytu. non mais mbeur bu wesso ñun ñen nga japp ni ñom nga wara mëna mën bëreel ñu nek say potentiel adversaire parce que fo nga wax ak gaay waaw Cobra ñu koy wax mais man gaay ji sa jour fu ma jaar dem rek amna na ma fekk ma tok place ngeen bi ma tok mu ma amul ngeen mi duma baye ma fenn. mu ma ndax sa combat bi dafa taxaw ma ne ko boo leeral na ko di ko leeral lu bari sax dama ne ko non lu dess ñepp lañu jaaxal sama combat ak Cobra taxaw na. dañ moor maa ngi koy nuyu de passage xam nga mais muy Cobra ak ku mu mënti doon mbër mu mu mënti doon bu ñu ma ñëwee xam nga wax ak suma ay staff ñu d'accord ak man man pare naa pour bëre aw ma aw ma aw ma aw ma jafe-jafe boobu noonu si ay adversaire wala gudd na rëy na nekk na fii nekkul fii xam nga li ma am solo mooy que xam nga na man sama staff nañ d'accord nañ waxtaan ba juboo xam nga ñu ne ma lii parce que lenn dafa am tey jii say kilifa bu ñu dugg la si dara da ngay ñeme. man foofu laay gisee moo tax ma ne leen damay wax Pambaay ak Mbaye ma leen am kilifa dafa neex mooy am kilifa lu tax mu neex mooy ko bu la dugalee dara da ngay ñeme parce que kenn du la seetaan même buñ demul fenn ñaanal la day ji xol bu sedd boobu ñuy amee ci yow que ni diw dañ ñu ko dugal ci lii mu dugg ci waaw moo tax ma leen say say kilifa soo kilifa tout le temps bu ñu la digalee rek defal da lay ñemeloo mën nañ jàpp ne daal li olof naan ku ñeme dañ laa déy Eumeu Sène junior actuellement mi ngi ci ay loxo yu wóor te vraiment daal amul dara lu muy moytu ci adversaire am. moytu ma dara moytu ma dara et tamit su war a xam nga ñoo nekk dañ maa war a woo xam nga ci ruq ne ma demal defi leneen parce que làmb ji man sol chaque jour dama naan man Bombardier rek moo ma ëpp de kenn ëpp ma fi non Bombardier rek dañ maa su dong kenn ëpp ma ci large boo sumee ko sumee ko amul loo may ëppalee xanaa njool na kese. njool moom loolu suñu borom moo ko def nit ku gudd ak nit ku xam euh, gàtt mais à part loolu Bombardier moom moom fépp ah, man philosophie boobu laay doxee te man Bombardier moom fépp. kon mën na jàpp daal problème adversaire bi nekkul sa côté côté côté ñi nga xam te ñoom la ñuy contacter la. non du kon ñi ñuy contacter sax man mën naa jàpp ne promoteur yi xam nga làmb làmb ji moo deme noonu souvent dafay am combat yoo xamante ne day dëgër ndax adversaire ku mel ne Cobra bëgg na bëre ak man. mais na baara njaay fa ne passé da ngay instant mu dem ci père ne ko diw sama ko ak mom taxaw na te man sax xamuma xam ko kon ñooñu bëgg nañ bëre ak yow ñooñu lomb ju di yàgg ci ñoon xëñ ci promoteur la amé lu muy taggé wala promoteur bëggal yi suñu borom xam nga mbir yalla suñu borom la quoi mais xëñ yagutul dara dina taxaw bu soobé yalla inshallah allah loolu wone rek baara ndjay mom mo bëgg sa combat ak mom wa baara ndjay xamna mom bëgg na ndax mom dem ba ci père ndax xol lool mom xamna bëgg nako mais mom bir bu taxawé man may wo xam nga waa Géewaay info ne leen di lol taxawna na mum kenn ko am <laughs> eh. ah, bur bu lol weso buñu buñu sédé euma xun xolé euma sen junior dafa nek mbër bo xamanteni mu ne daga xawa a am ben attitude réserviste quoi tok sa ruku japp sa ñambur donc lol tamit lan moko waral non demul non sax tooguma sama ruq parce que mbër yu bari amna ak ñom ay contact xamanteni naa ak ñoom mais xam nga lima demone Pikine ñew xam nga tamit am na ño xamanteni ni ak ñom minantu ñu won lol lol lol balagay dem na ba nek Pikine xam nga fu ma fekk mun na bañ a nuyu waa Taïsegou mais man daf may nuyu dafay ñëw nuyu ma ba gars yi ñun wax naan dañoo am corrélation dañoo am lii mais xam nga tey jii fan yii woote na fi ma dem ba këram tamit mu siyaar ma accueillir ma nice moom ak Sa Thiès kon ñooñu xam nga boo na seen biir keneen ak keneen Alioune Seye Deo ak ñëpp guy geeg ñëpp xam nga daal man ëpp xëy na gars yi ñooy wax loolu quoi waaw mais man gisuma loolu wax dëgg fa yàlla xëy na yéex a rek mais. xam nga ñu ngi kawam di di di def ñu kémt lay katan pour duggante wat ak ñëpp waaw ya ko suñu borom def ya amur bu lol weesoo ñu wax ci écrit bi école de line Mor parce que amna ay jamono ñu daal di rañewon ben solidarité ben union wam te amna ci digënté écrit bi entre mbeur yi eh, ba ñu ne ñu dem au fur et à mesure mu melni mbolo bobu gisatuñ ko lol yow nan nga ko jangaté wa man man dama pas personne man gisuma lol parce que lutax tax dama ne gisuma lol moy que doxeewu ko ko muy mbaytin di pambaay xam nga ñoom ñi nga xamante ne chaque jour man ak ñoom ñu ngi ci écurie bi chaque jour maa ngi ñoom ñu ngi ci écurie bi guy gi maa ngi ko nuyu de passage moom moom xam nga comme ni mu koy waxee star la xam nga parce que ay ay ay ay jabam mayu koy pour mu des fois di ñëw ci écurie bi tout le temps mbëri mag yëpp ñoo mel noonu loolu dañ koy nangu ah guy gi moom la yàlla def mu nekk suñu bopp ñun ñëpp xam nga parce que mooy champion bi moo fi yor kase bu ñu yorul xam nga moo ñëpp ay victoire moo ñëpp ay combat et puis moo ñu gën a siiw ñun ñëpp xam nga loolu dañ ko koy nangul di ko ñaanal bu baax aussi tamit mais Pambaay mbay ñi yëpp man damay gis ne xam nga man man xawma nag yeneen côté ko man moom gisuma loolu ko ñëpp mbër bu si nekk dama li ma warloo ak yow dama na koy jox ba mat sëkk man aussi noonu kon man côté boobu mënu ma si damay mar place pour wax si parce que dund ko te nit lu mu dundul xam nga mënu si sori quoi waaw mbër loo dundul mënoo ci sori loolu dëgg la mais am na loo am teen ñun lépp lu ñu wax dañ koy teg ci ay fait parce tey gis nañ euh, diggante guy gi ak sa saako joor ni relation bi meloon ba premier combat guy gi ak Zos rek bi ko Zos daanee saako joor ragaw ñoom dafa dal dal dëm na mu daal di jooy au fur et ñu dem ba gis seen diggante donc daal di xaw a ñagas tuuti est ce que tey ñoom problème boobu amoon seen diggante xawul déstabiliser donc esprit de groupe bi loolu tamit moom xam naa ni pour ma wax si yomb parce que problème yooyu man mi ma fekk taay nga dama koy dégg rek mais du lu ma fekke bi ma retourné fekk na saaka jawar suñ yàlla suñu borom def yaram bi jagadi xam nga ba tey fekkantewaatuñ ci écrit bi maa ngi nuyu Fifty Cent de passage di nuyu aussi Mor Fadam Junior di nuyu mbëri école Mor Fadam yëpp Zane Ndiaye sans raison doomu Mor Fadam maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax maam njambaar maa ngi koy siyaar aussi ñoom ñëpp maa ngi ñëpp parce ñoom ñëpp sumay nit lañ vraiment su ma amee combat kenn waaw mais problème boobu daal man loolu laa si xam quoi may bu ñuy am seen problème yooyu ñuy wax maa ngi maa ngi taay si nga bi ma retourné taay si nga fekk naa euh, saaka joor yaramam xawal jagadi waaw moom yaramam jagadi na nag fekkantuñ ci bi gisuma ñoom ñaar mais nag damay dégg te man moom lu may dégg souvent du ci mën a sori waaw ndax dégg dara di wax moom weesoo goo ñëw tàjj teesante waaw dama ab laa bëgguma ma tàjj teesante waaw lu may wax daal ma teg ci sama bët lu ma teg sama bët nag ragaluma pour nit toog ñaari nit toog mën la lii maa ko wax wala lii maa wax loolu moom daw ma ko barke Serfane mën nañ jàpp ne dafa nekk problème boo am te biir na ay paramètres yu bëri la ci échappé ba tax mënoo cee sori. ok absolument waaw loolu moom wér na quoi moom càndum xam naa xam naa xam nga li may wax <laughs> xam nga li may bu baax a baax a baax eh, loolu la moo tax ma ci sori quoi problème bu nga xamante ne lu ma ci échappé dafa bari mais tamit ñu ngi leen di ñaanal xam suñu borom gën a rataxal diggante bi waaw ñu ngi leen di ñaanal suñu borom gën a rataxal diggante bi ci barke suy naaw amet parce que seytaane moom fu mu xajoo rek lay dugg des fois nga gis sax mu taxale ay ñaar ñu bokk ndey ak sama ñu xamanteni da ngeen a fu ñu di wutee ngeen di ñaanal ñim ñaar ñepp am suñu borom defaraat seen digënté bu baax a baax ñuy nuyu saako jot de passage di ko ñaanal wër gu yaram ci barke suñu Ahmed da am bu amna question moom tan aussi dañ koy faral di laaj mbër souvent xalaat yi di ci wuté muy kan mo dakk bëré ci lamb ji lu sa xalaat. non man mom kan mo dakk bëré ci lamb ji so mako ko laajee ji dina dinaa sawar ci tontu ji Bamba ak Mbaye ñoo fi dàq bëri non ñoo fi dàq bëri amuñu morom ci làmb ji c'est dëgg Mbaye Mbaye amuñu morom ci làmb ji de ñoo fi dàq bëri maa ko wax xey am bari li nga wax reene mo mako wax ba mbay ci na fi dàq bari kay amu ci tanki ginnaaw ak bada ñooñu dañoo mën a bëri ba mbay Mbaye ah wa jeeg ni nga def baax na de wa bindama lay siyaar non barke Serigne mo wax lu caaxaan de Pambaay Mbaytin ñoo fi dàq bëri bara ñëw ne ko danduma léegi bu weesoo ñooñu xamal ñooñu mën nañ tey dañoo nekk donc ci les jeunes mais côté champion yi bu ñëwee ci ay Balla Gaye Eumeu la déggee numéro 2 Modou cercle boobu dañuy cercle des VIP kan nga jàpp ne moo ci dàq bëri waaw cercle boobu moom xam nga damay jàpp ne tout temps man dama doon wax ma ne Balla Gaye bu nga xamante du bu mais dafa mën def la dafa mais bala gay du mbër buñu yapp man dama wax tout temps du mbër buñu yapp moy boko déggé moy ga dafa ëmb li moom dajal lu ñu ñu ci bari lu ñu manké mom loolu la dajale moo du mbër buñu yapp dogu mo la mais ki day ki dajalé lépp kay kon mom mo dakk bëri ñeneen ah en tout cas dal loolu la la wax du mbër buñu yapp musen da seen mën def ëm ëm ëm non ëm deuluma ma solo mu ay ray rayal de nga mo dakk bëri seen digënde no nah, rayal mo mais tay ji bu may wax dama su fekkoon nee dama naan la carrément diw moo dàq bëri hmm? dama naan la diw moo dàq bëri mais dama naan la kenn ku ci nekk li mu manqué ma wax la ko dama ne la Eumeu Sène mën na aar bu muy def mais Balla Gaye du mbër bu ñuy yàpp kon xam nga mooy mbër bi nga xam ne moo dajale lépp. su ma la déggee daal Balla Gaye moom yeneen yeneen yeneen champion yëpp am na loo xam te ne moo leen ko ëppale lu mu am ñoom amuñu ko. champion la woo champion la da koy xool parce man moom nit maa ngi lay joxee cër ci nga dem ñëwaat xam nga nit dem ñëwaat ñëpp ne kii dëgg parce que jom ak bëri bi katan gi xam nga dem ba ñepp na lâché nga nga reyaat sa bop pour ñew bokkat koku du nit ku ñuy yapp fofu laay tek sama baram tuut sa ñewatam delu sem est ce que yow gëmoon nga no non lu ma du la neub lu ma lu nga xamanteni lu dekk won lu leer sama bop da waron wax ma no di mënul ñew comme ni mu meloon c'est impossible mais lim mu ni nii daf lay wane nitu jom la nit ko am fulal la nit ko am fayda la et puis yabul bopam parce que xamna li koy may doole xamna li koy may katan et puis xamna li koy may ndax kon kooku du ku ñuy yab. ok mbër